di wax ne nag aide bi ñëw na si heure ndax ñëw na si weer bu mu war a ñëw jox nañ ko nit ñu ko war a jox les personnes handicapées loo xamante ni soxla nañ ko. ak liggéey bu rafet boo xamante ni centre social liggéey nañ ko ak CPRS bu Mbàkke liggéey nañ ko dañ doon faral di gis ne aide bu doon ñëw si handicapé rek benn couche ñoo koy jot te Mbàkke handicapé yu fi nekk dafa bëri. ren CPRS à l'occurrence monsieur Meng wër na handicapé yu nekk yëpp yoo xamante ni nekk ñu si association yi boo xoolee cible cinquante yëpp ñoom lañ ko jox. léegi ñoom ñëpp tamit ñu leen di xamal ne war ngeen affilié wu bokk si association yi ndax pour pour ñoo ñëpp ñu recensé leen xam leen ku ne day bokk ci association pour bu ëllëgee liggéey bi gën a yomb di leen jaajëfal parce que lu fi amoon lu fi amoon daaw daaw kit bu fi amoon ren dafa ñëw dafa triplé ren am nañ saako ceeb am nañ diwlin am na suukar te loolu lépp ñoo ngi si jaajëfal monsieur le ministre monsieur le maire jaajëfal nañ ko si ba pare tamit lu ñu ko jox tamit yeyoon nañ ko tamit am na équitable am na tamit équité parce ko neexoon ne bu joxee liste bi cinquante personnes ne dix yi joxal ma ko semaine nit semaine nit mais ba mu joxee liste bi cinquante personnes si jox ko Mbengue CPRS da see génn Mbengue tamit def si liggéey bu mucc ay moo ànd see Xarim Ndiaye def liggéey boo xamante ni daal ñoo leen siy jaajëfal di leen si gërëm di leen ñaanal yàlla rek lu mën ren bu déwénee yàlla nañ mën lu ko ëpp di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul sant bu baax ci monsieur le maire ministre Gallo Ba ci jëf ju am solo ji mu def ak ci weeru tedd yi moom mu ko defee ak ci ñi mu ko defal comme ni ko conférence bi waxee rek ndax jëf la ju baax joo xam ne yóbbu na ko fa mu ko war a yóbbu def na ko fa mu ko war a defal def na ko ci weer bi mu ko war a def muy lu baax loo xamante ni joxew ñam ci lislaam fekk sa benn moroomu jullit bu xiif nga jox ko mu lekk moo gën tabax junni jumaa kon loolu yàpp naa ne bu yemul fóot ren sëkk waaye nag da ko def na ci turu maire bi yëpp ak ci turu Mbàkke yëpp muy nag loo xam ne duñ ne guléet yàgg na koo def avant muy nekk maire avant muy doon dara la kon def ba ni ko yàlla joxe maire bi muy muy yilif dëkk bi yëpp daal di feddali loola duñ ko yokk baax a baax te bu ñu xoolee daa mel na daaw li mu defoon da ko doublé ren kon yàpp nañu fi am na am na avancement bu baax a baax ba kon ci turu suñ daara yëpp ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ci barkeb alxuraan waaye ci barkeb Serigne Touba lépp loo xamante ni mi ngi koy yéene ci Mbàkke yéene ko ci daara yi suñu borom dal ko la kaw ñotal barke Serigne tey ñi ngi fii ci euh, commune Mbàkke euh, ci suñu opération bi ñuy wax solidarité euh, Ramadan ñëw fii pour distribuer ay kit alimentaire yi nga xam ne ñu ngi ko jagleel ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ràññee ci bu baax nag daara yi Euh, parce que Mbacke xam nañ sa particularité c'est les daara parce que njàngum alxuraan la ak njàngum xasi xasida la ah ñu ànd ci nag ak euh, euh, mairie bu Mbacke avec à sa tête le ministre maire monsieur Galoba que bi ñuy remercier au au passage ah di wax ne nag aussi opération bi ci ndigalu son excellence le président de la république monsieur Macky Sall la ak suñu ministère de tutelle muy le ministre du développement communautaire en charge de la solidarité nationale muy monsieur Samba Ndiobène ñu fas yéene tey euh, maanaam séddale lu tollook euh, euh, ñaar téeméeru kit alimentaire ak juróom fukk ak ñeent. te loolu incha allah dina yegg dina impacter maanaam ci ñaari junni nit fii ci biiru biir biir biir Mbàkke donc loolu aussi tamit kit yooyu kit bu ci nekk ñi ngi ko mi ngi composé wu am na fukki kilo ceeb ak no cinquante kilo ceeb mooy juróom fukk kilo ceeb ak fukki kilo suukar. ak fukki litre diwlin ñu tànn nag ci weer boo xam ne muy weeru ramadan muy weer wu sel muy weer woo xam ne weeru yërmande la euh, weeru aussi partage la ah, weeru solidarité la ah loolu nag ñu fas yéene ko rawal euh, lawal ci biir 17 euh, départements yu Sénégal te département Mbacké bokk ci loolu tey moom moo ñu fi indi te ñu ngi ko fas yéene continuer également ci yeneen département yi nga xam ne ciblé nañ la. fu Mbacké soo xoolee euh, euh, le ministère du développement communautaire dafa am li ñuy wax cadre harmonisé boo xam ne en partenariat avec la banque mondiale euh, te ci cadre harmonisé boobu dafa am secteur yu bari agriculture mi ci élevage mi ngi ci aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu jaww ji muy ANACIM ñoom ñëpp ñi ngi ci. te ñooñu dañuy toog chaque année maanaam di prévenir. Euh, gox yi nga xam ni peut-être suñ deful ay jéego li ñuy wax insécurité alimentaire mën na fa am donc ci loolu noonu lañ tànn 17 départements yi nga xam ne ci mois bii nga xam ne ba mois de juin suñ ci taxul l'insécurité mën na fa am moo tax ci tànneef boobu aussi tamit Mbacké bokk ci cible boobu noonu loolu moom moo waral tey ñu ñëw fii ci Mbacké pour mën a def cette distribution waaw at mu nekk euh, commune Mbacké day organiser dañoo mel ni daaw ci waxtu bi euh, defoon nañ activité bi jàppale daara yi waaye daaw ci daara yi la yemoon avec euh, ay kit yu xawoon na amoon na solo waaye ren daa am beneen da gën am solo ndax non seulement dañ cee boole daara yi waaye dañ cee boole jàngu bi ba pare boole ci également euh, juróom fukki famille yu néew doole. nga xamante ni service action sociale ñoo leen choisir loolu nag tey su ma nee nekk euh, naam mairie Mbacké doole ci loxoom ndax génn 5 millions pour def ko waaye tamit fonds de solidarité nationale. nga xamante ne sunu xarit la DG Kaldu docteur Kaldu ba moo ko jiite da cee indi participation bu am solo ndax joxe nañu deux cent cinquante quatre kit maanaam euh, ñaari téeméeri kit ak juróom fukk ak ñeent kit bu nekk am na saako ceeb am euh, kilo fukki litre euh, diwlin ak ak fukki kilo suukar loolu nag dañ ko jox képp ku fi teew ci daara yi waaye jox ko également jàngu bi ba pare jox ko ñi nga xamante ne ñoo néew doole. kon euh, daaw ci heure bi daara yi dong la woon mais tey bi yoon nañ koo yaatal euh, ñi nga xamante ne également seen doole jot seen ginnaaw loolu bu ñu ko defee mooy li président bëgg ci ci communauté yi ci communes yi ak ci état bi maanaam ñu gën a gëstu bu baax a baax ñi nga xam ne seen doole seen bariwul wala ñi nga xam ne dañoo am ay jafe ci wàllu seen ci wàllu handicap. loolu nag mooy équité social mooy fexe ba état bi li muy dajale ci koom-koom ak ci ak ci ak ci ak ci ak ci alal moo mën a àgg fépp. surtout ñi nga xamante dañ koo gën a yittewoo mooy ñi nga xamante ne dañoo ne situation yu xaw a doy waar waaye tamit ñu boole ci bu baax daara yi ndax président de la République dafa fonk daara yi ba pare ci politique bi mu décliné mooy fexe ba mairie bu nekk ci budget bi nga xamante ne moom la jagleel éducation jagleel jagleel njàng mi ñu jël ci ab pàcc bu am solo jox ko daara yi donc buñ ñu buñ tege suñu suñu tànk foofu jàpp naa ne loolu la président bëgg ak loolu moo méngoo bëgg euh, préoccupation également population yi. ndimbali moom jëm ci commune Mbacké du jeex. Euh, on a prévoir également jàppale jigéen ñi ci fan yu néew euh, finance ci finance ci ay financement euh, jàppale tamit xale yi ci ci ci wàllu liggéey ci ci programme yoo xam ne président de la République moom la fi teg lu wàllu ay mel ni UCG wala xew nayu wala yeneen i yeneen i yeneen i liggéey yoo xam te xale yi ñu koy xaar loolu lépp daal mooy que dañoo teg suñu tànk ci action sociale parce que la commune maanaam commune dafa am vocation sociale ndax li commune bi di dajale ci euh, as tuut ci ci koom-koom wala ñu encore suñu doole bopp dañoo fas yéene bokkoo askan wi yëpp waaye surtout ñu bokkoo ñoo xam te ni seen doole ñoo gën a yittewoo seen doole ñoo jox seen ginnaaw. dañu taxawal commission ci ci ci mairie Mbacké bi commission bi nag euh, sëñ Jili Mbacké ñu ngi koy félicité bu baax a baax liggéey def na ci liggéey bu am solo moom moo moo jiite commission boobu. commission bi nag mooy dañoo fexe ba képp kuy bépp daara bu nekk biir Mbacké biir commune Mbacké dañ la dañ laa jël ci. kon xam nga daanaka amul critère critère mooy na nekk daara mu nekk daara boo xamante ni am na ñu fay nekk am na ñu fay jàng ay xel ay taalibe yu fa nekk nekk ci biir commune Mbacké boo ko boo ci nekkee rek sëñ ji la boole ci liste bi te di nga del jox li nga xam ne moom la moom la jox ñëpp.